Nous avons ñëw tey waxtaan Sénégal au nom de la coalition John 2024 bi nga xam candidat bi mooy Mahammed Boun Abdallah Dionne euh, une nag sunu position musulmane variée. li ñu mas a wax mooy ñun d'accorduñu ci reportu élection bi jàppoon nañu ni élection yi dañ ko le 25 février 2024 bi ci teg aussi waxoon nañu ni. dafa am ay tuuma yoo xam ni dañ koo teg te mu nekk ci wàllu ger ñu teg ko ci ndodu candidat benn bokk yaakaar ak ñaari membre conseil constitutionnel loolu dañ ko war a leeral parce que conseil constitutionnel bi nga xam ni moom mooy arbitrer élection yi dara dara dara waru gàq ci ci deram ndax su loolu amee ëllëg ku mu déclarer vainqueur nit ñi mën nañ koo contester su loolu wéyee nag suñu coalition ñun dialogue lañu wax ndax Sénégal tool nañu foo xam ni dañoo tànn dañoo war a tànn ci ñaari option est-ce que ñun dañuy jël population yi jal leen euh, dóor leen ci kaw police ak gendarmerie ah pour que dee ñu continuer di compter ay ñu dee ay nit di yàqule te du mujj fenn mais aussi daru Sénégal yi yàqu économie bi taxaw ñu dogo a waxtaan wala bok dañuy njëkkee waxtaan bi pour trouver solution té yooyu ma wax du am Mohamed Boun Abdallah Dionne nga xamni moy mooy sunu candidat nek na fi premier ministre pendant 5 ans 5 ans yooyu yépp kenn dégg fi yi ñu fi dégg ndax daf fi nekk woon di fay ay di jubale nit ñi kon ku mel noonu kenn du ko wax lan mooy euh, dialogue ala kulli alin jàmm rek lay mën a woote te suñu coalition aussi kenn ñu bët kenn abaluñu ay nopp kenn abaluñu ay tànk ba ñu nii fii ngeen di xool wala lii ngeen di déglu wala fi ngeen di dem li ñuy def ak lu mu mën a doon dañuy wax le Sénégal d'abord man mooy suñu décision bi ban décision moo moo ci gën pour que mu nekk intérêt Sénégal intérêt Sénégal nag mooy ñu dem ñu toog ñu waxtaan ndax datu élection dañ ko war a jàpp de façon consensuelle li ñuy wax acte réglementaire la président de la république moo ko war a jël te suñu bàyyee ah ñeneen dem jël ko en leur place loolu day nekk loo xamante ne bii day indi rek ay coow ci réew mi kon comme conseil constitutionnel wax na na président jàpp date président ne ñëw leen ñu jàpp date bi nañ dem àndandoo ñu jàpp datu élection bi loolu mooy li nga xamante ne bile moo gën a yanu maanaa moo gën a responsable bu ko defee bu ñu fa nekk di xeex di xuloo pour doog a waxtaan pour mën a trouver une date ñun sunu candidat di Mohamed Boun Abdallah Dionne loolu la wax bu kenn deeti bu kenn yàqalooti bu réew continuer di yàqu pour que ñu mën a jàpp élection pour ñu mën a jàpp datu élection loolu mooy taxawaayu suñu coalition euh, ci mbir